بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi nu ngi sant sunu boroom aji màgg ji te kawe noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni moom sunu borom rek mooy ki ko jagoo noo ngi julli di sëlmal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waameem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi ala saxaabati ajmain rabbana ighfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم mbokk jullit ñu ngi sant sunu boroom bim ñu defalaatee tawfiq ba ñu dellu siwaat ci ron keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sunu bindab tey ñoo ngi koy def ci man humu saxaaba ñan ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind bii nag su ma ko waxee amaana ñi yàgg a topp dar si mën na leen a bett ndax bu ñu dee waxtaanee ci saxaaba yi di tànn ay benn benn di ci wax ba fi ñu toll nii bu ngeen fàttalikoo liñ jot a amagum ci ay saxaaba yoo xam ne yàlla baaxee na ñu def seen dund bi ñu tàmbaleeg léegi xam naa ni téeméer bi matagut lim waaye nag li ko manqué téeméeri saxaaba bareetul ndax bu ngeen fàttalikoo bi dars bi tàmbale ak léegi fii ne ñi ngi ci juróom-ñetteelu at kon booba ak léegi mi ngi bëgg a yàgg nu dem ba mu yàgg ñu seetlu ni dars yu bari ñàkkul ñenn ñi fekkewuñ ko lu mel ni dundu alxulafa rashidun al arbaa ñu bari fekkewuñ ko wa illa jumtukaay yi nga xamante ni moo ko doon enregistré rëcc na leen bi ñu toppaatee dar suy gis ni yooyee kon rëcc na te ban ko defee ak léegi mi ngi bëgg a mat juróom-ñett ci ay at kon wàññeekuwaat aayut fa inna dikra tanfaul muminin wala wàññeekuwaat ca yenn ya boog ñaareel bi mooy xam ngeen ni jamono bi ñu toll saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëdd biñ leen ameel dëgg dëgg dëgg dese nañ koo matal àq biñ leen amel njukkeel biñ leen war a delloo gërëm giñ leen war a gërëm sacrifice bi ñu defoon ñoom sacrifier seen bopp ngir ñun ñu mën a am jàmm loola de ku di borom xel te yàlla baaxee la njub war ngaa xalaat saxaaba yi nga kontaan ci ñoom jox leen gëdd bu mat sëkk bu tolloog lañ yeyoote moom ko mbokki jullit yi jamono bi ñu toll am na kuréel boo xam ni ñu ngi tàmbalee am doole fii ci réew mi yàgg nañoo am doole waaye fii ci réew moom ñu ngi fi tàmbalee am doole ñu leen dox ash-shi'atu rafida xam ngeen ni shi'a bokk na ci si leen mën a xàmmee mooy taqiya mooy lëbbatu bokk na ci yiñ leen mën a xàmmee mooy dañuy ŋàññi saxaaba yi di wax ci ñoom lu bon a bon a bon yàlla xam na ni bu yàlla defee ci yow tuuti fiiraange ak bëgg saxaaba ya soo déggee lenn lu bon li ñuy wax ci saxaaba yi da ngay gëm ne yow déglu gii sax boo moytul nga am ci bàkkaar kon jaadu na ñu dellu si waat conscience yi xel yi waxaat ak jullit ñi ñu xam ñan ñooy saxaaba ya nga xam ni benn waay bu jàkkaar la woon ak jant bi di leen saaga suba ba ngoon dëgg la la muy def bon na waaye du la delloolu tolloog meetar ca la nga jàppoon ca ñoom ak gëdd ba nga leen joxoon kon buñ ñee man humu saxaaba ñan ñooy saxaaba ya ndax dañuy wax ni nit lum xamut mën na koo foye mbaa mu noonu ko waaye boo xamee saxaaba yi ñooy ñan su boobaa gëdd ba nga leen joxoon da nga koy gën a dolli ñeenteel bi xam ngeen ni jamono bi ñu toll dafa soreek diggante fa yonent bi nekkoon ak fi saxaaba ya nekkoon ak tey lu ne dox na ci diggante bi ngëlëmte gu ne gaar na ay doomi aadama kenn ku nekk jàpp ne la muy woote mooy njub lu baax la te loola wuute nag la keneen di wu woote kon foog naa ne ku di borom xel la nga gën a soxlawoo ñu xamal la ko pour nga xàmmee yoon wi mooy ñan ñooy saxaaba ya yonent bi yaraloon boppam sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi sunu borom bi mu bëggee ñu jaamu ko dafa sàkk ab àddina tuddee ko adduniya ba mu bëggee ñu ko jaamu dafa sàkk ay mbindeef yi ñuy tuddee nit ak jinne ngir buñ fi ñëwee ñu jaamu ko ba mu bëggee ñu jaamoo ko nam ko bëggee dafa yabal ay yonent te yonent yi bari lool lim bi bari lool ah wa in min ummatin illa xala fiha nadir yonent yooyu ñëw di wane ni sunu borom bëggee ñu defee ko yëf yi yonent bu ci nekk nag yàlla daf laa tànnaloon ay àndandoo àndandoo yi yàlla tànnaloon sunu yonent ñoom ñoo tuddee saxaaba ya saxaaba yooyu la abdullah ibn masud doon wax naa bëgg nekk saxaaba taxu koo doon waaye ni yàlla tànnee ab yonenteem ndax wallahu aalamu xaytu yajcalu risalata noonu la yàlla tànnee ay góor ak ay jigéen ay mag ak ay ndaw ñu jamononteeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam du par hasard de ñu dar ko du par hasard de ñu dugg ci biir diineem di ko jàppale du par hasard ndax am na ñu ko gënoon a jege dund ak moom te dugguñ ci diine ji kon nga xam ni mbir mi nekkut li gaa yi jékki-jékki affaire bi daa tombé rek wala ñii ñoo ñoom la yàlla bindoon ñu dajeeg yonent bi déedéet mbir mi demeewut noonu de yàlla dafa xool kaw suuf gis ni xol bi ci gën a sell gën caa set mooy xolu muhammad sallallahu alayhi wasallam mu jox ko nubuwa gi mu xool xoli jaam yi gis yi ci gën a set mooy xolu saxaaba ya mu def leen ñu nekk ay àndandooru yonent bi radiyallahu anhum wa ardaahum yàlla xam na ni boo dee yërkatub siira ngay jàng aka nafar di xool saxaaba yi ak li ñu daj te foog naa ñenn ci yéen danañ xam lu bari ci li may wax ndax comme ni ma leen ko waxee ci diirab juróom ñetti at yi jàll li fi romb ci ay saxaaba xam naa ni lim bi ba mu àggu téeméer waaye li ko ko manqué bari wut nga gis sacrifice yi saxaaba yi def yépp ci seen alal ci seenu njoboot ci seenu dëkkuwaay ci seeni bakkan ci seen deret ci protéger yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu jaral leen jooy mu jaral leen fanaan ci àll jaral leen tawte jaral leen lépp kon da ngay xam ni ñii amut lenn loo xam ni mën nga koo def tey ba delloo leen njukkal lu tollook lanu am lu dul di leen ñaanal yàlla muy radiyallahu anhum wa radu an kon mbokk yi ñu ànd xam ni li waral ñu tànn bind bu mel nii tuddee ko man humu saxaaba bokk na ci mooy bu ñu xoolaatee sunu bopp kat dese nañoo yaru dese nañoo yaru dëgg la alhamdulillah sunu borom defal nañu tawfiqi xéewal ak xam sunna loolu nu ngi ko koy santee moom sunu borom sunu borom defal nañu xéewalu bañ biddaa loolu nu ngi koy santee sunu borom sunu borom defal nañu xéewalu bañ bokkaale loolu nu ngi koy santee sunu borom waaye bu ñu waxantee dëgg te yàlla rek tax yar ba saxaaba ya amoon ak teggin ya dëgg dëgg amuñu ko orma jiñ amoon ci waxi yàlla ak waxi yonenteem loolu de wax dëgg yàlla amuñu ko barki démb rek laam ku may may waxtaan ak benn waay ci daaw bi ni mu meloon ñun biñ ciy doog a jot mu may nitali koo xam ni góorgóorloom ak farloom dafa yeggoon ci benn waay dafa for benn journal journal bi xam naa dañ cee def benn aaya alquran waaye moom it mu bañ comme journal bi tasaaroo te alquran rek kon naa ko xotti mu ni xotti gim ko xotti mbokk mi da cee jooy jooy yoo xam ne dañoo tiit ñoom ñëpp ndax pourquoi ngay xottitee alquran te ab journal la xotti de journal te ka xotti moom jubluwul dara dal moom da doon protéger alquran ci parce que gis na ni journal soo ko bàyyee mbir mi day tasaaroo mu ni xaaral naa ko xotti waaye jëmmi xotti gim xotti alquran rek jaral na mbokk morom mi da cee jooy jooy yoo xam ne yàlla rek ko xam ci ngay xam ni kon yëf yi jamono booba ñu cay doog a jot nan meloon ndax yëf yi daa beesoon ci ñun sa yaboon nu yëg ni boobaa baax waaye du bin toll tey tey nag booba la muy baax baax na saxaaba ya meloon moo ko gën a baax te ñu xam ne ñoom lañ doon jéem a roy bay jéem a mel noonu kon bind ab tay bii ñu ngi ko def ci man humu saxaaba ñan ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aji gëm yàlla ji gën a yëngalaat ab xolam aji gëm yàlla ji gën a nattaat boppam aji gëm yàlla ji gën a nattaat ay koogam xool moom fan la toll dëgg dëgg dëgg ajana ye bunt ya la muy bari bari ak la muy yaatu yaatu mbagg ya nga fas yéenee puusanteel pour tàbbi fa ñooñu ñooy saxaaba ya ndax yaakaar nga ci yaafus gi nga yaafus ak ni nga mel ak ni nga yoon joxee ci ay xeeti jaamu yàlla yu bari yoo xam ni ñoom fan ko tegoon dafa kawe ba pare nga bëgg ne yow bu tàbbi àjjana jotee ñii nga bëgg a dóorantil ay mbagg maanaam di puusanteeg ñoom pour dugg su boobaa yaa ngi nax sa bopp ñaareel bi mooy nit koo gis ci kaw suuf ak lu mu la yéem yéem yéem yéem ci ay jaamu yàlla ak lu mu la yéem yéem yéem ci ak mbaax yàlla xam na ni bu daje woon ak kenn ci saxaaba yonent bi su dee jom mi ngi ci moom du ñemee siggi day sëgg ba keroog koo koy dem parce que fam toll dafa soreek fa saxaaba ya tolloon lool te kooka mooy ki gën a baax ci ñun mooy ki gën a góorgóorlu bind bi buñ ko defee ci man humu saxaaba dana tax ñu dellu delloo siwaat sunu xel xam ni ñun yàlla mi nga xamante ni moo yabal muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad gaa yi doon dund ak moom nga xam ni léppam loo xam ne dafa aju min jaanibi tashriya dañ ko doon wattu di ko mokkal ñooñee jàpp na ni soo copier seen dund kenn koo ci jël rek am muhammad mu sotti lay doon sallallahu alayhi wa sallam maanaam li ma jublu ci am muhammad mu sotti mooy da ngay gis ni la melokaan yi nekkoon ci yonent bi moom la yaree saxaaba yim yoroon ridwanullahi alayhim ajmain jugewu fu lu dul taraka al umma ala al mahajjati al bayda layluha ka nahaariha la yasiqu anha illa halik bind bii ñu jagleel ko man humu saxaaba ñan ñooy saxaaba ya ngir nga xam ni bariwaana ay jëmm yoo xam ni yàlla baaxee na leen ñu liggéey ci lislaam loo xam ne yow buñ la waxalee seen dund buñ la waxalee seen dund te waxuñ la kii ci ban génération la dundoon yow da ngay foog ni kii ci saxaaba yi la bokk te fekk yàlla xam ne ni kooku ci taabi'un yi la bokk wala ci taabi'i taabi'in yi kon moo lay wan ni saxaaba ya kon buñ la waxalee seen dund ñoom looy foog beneen bi ci topp bu ñu tànnee dund man humu saxaaba da ngay daal di gisaat ni jamono lu muy wër wërbatiku mbir di suppiku tey jii ndox bu jaaree ci siwo bi jaar ci paan bi jaar ci rasoir bi jaar ci pot bi jaar ci leget bi jaar ci këll bi barab yooyu mu jaar ay sabab lay doon mën a def ci moom ay jeexintal waaye su fekkee dem nga ba xàmmeetoo ndox mi nu mu mel defe naa da ngay dem ci source ba fa ñu tànkee benn waaye dafa joxe misaal bu am solo dafa ñëw ci ndongo yi muy jàngal mu dem ci classe bu njëkk bi defar benn photo baaxoñ ni leen dessiné leen baaxoñ ñu dessin ko mu denc original bi jël dessin bi nga xam ni moom la classe bu njëkk bi dessiné yóbbu ko ci ñaareelu classe bi dessiné leen façon dessin bi mel nii ñoom ñu dessiné ko mu denc original bi ak premier dessin bi jël deuxième dessin bi yóbbul ko troisième classe bi dessin maanaam daal classe bu mu dem ñoom lañ dessiné moom lay jox deuxième classe ba ba àgg ci juróom-benni classe liñ deseene boo ko xoolee ak lan njëkk a deseene daanaka dafa mel ni asamaan ak suuf ci soriyoo mu ñu leen nii la mel nag diggante saxaaba ya lañ doon dund ak ñun li ñuy dund gis nga soo bëggee dessin bi jub da ngay dem photo original ba ngay jël tiim ko di xool kon dessin bi dana jub waaye kii dafa jël copie ci diw kee copie ci diw kee copie ci diw kenn ku ci nekk amaan na am na say mbiri bopp yu ca àgg yu ca bokk su yàggee dañuy dem ba da ngay wàcc yoon bi lan laa namm ci misaal boobu mooy tey ay woote bari na ay mbooloo bari na te li gën a yéeme mooy kenn ku ci nekk dafa jàpp ni moo nekk ci dëgg gis nga fi mu nekk nii boo yaakaaree ni réew mi ni muy doxee ñoom diw ak ñoom diw ñoo am problème ndax nga sa bopp ñépp am problème ndax kenn ku ne da ngaa gëm ni li nga nekkee dëgg la sa nekk moroom nekk baaxul gis nga lii ñuy wax nii ci kaw nii maslaat nañ ko maasale jàll kese la waaye du dëgg maa la ko wax mbooloo moo gis ak meneen mbooloo may maslaa yi ñu def yépp maslaat nañ ko maasale jàll la waaye kenn ku ci nekk li nga gëm mooy la sa la nga nekk mooy dëgg la sa morom nekk du dëgg ngëlante kooku pour nga génn ci dellul te ña nga xamante nii ñoom la yàlla ni gërëm naa leen xanaa mbooloo moo xam ne sunu borom nee ne ñii ñoom xawma ñan waaye ñii ñoom gërëm naa leen koo yaakaar ni gërëm nañ ko ku dut kooku ci yaakaar la tege bii nag tegewul ci yaakaar ci yaqiin la tege ndax yàllaa ko waxal borom ci téere bu tedd bi bu ñu tànnee bindab man humu saxaaba ñan ñooy saxaaba ya kon nag fi saasa fi ngay dal di yëgaatee ni man nag kon war na maa jëlaat samay responsabilité yu mag pour jéem a jàng ak xam yi ban dayoo la saxaaba yonent bi amoon sallallahu alayhi wa sallam ngir benn fonkeel gi nga leen war a fonk bëgg gi nga leen bëgg war war a war a bëgg sonn gi nga war a sonn ci seeni mbir défendre gi nga leen di war a défendre mbooloo yi nga xamante ni ñoom dañuy ŋàññi saxaaba yi nga xam leen tege leen côté dama fàtte waaye al imaamu zahabi mi ngi nettali ci siyaru alami nubala nettali bu reelu dama fàtte kan ci borom xam-xam yi la tur bi ma xaw a réer ndax ba ma ko gëj a yër ak léegi mi ngi bëgg a yàgg dafa am benn waaye boo xam ne ab faqmaan la woon dafa doon sàcc mbaam di jaay faqmaan la woon boo xam ne li nekkoon métier mooy sàcc mbaam di jaay yàlla defal ko tawfiq mu dem ba tuub dugg ci lislaam dem nekk ab chia bi mu nekkee chia bi imam bi da ko woo mu ñëw mu ni ko billahi giñ naa ci yàlla ni ah maa ngi yaakaar ni dem sàcc mbaam bu tuyaaba day am dem sàcc mbaam sax fi ne mooy gënal yàlla fi ne chia gi nga nekk te wallahi wax na ko dëgg xam nga tam wax ko dëgg maanaam dem sàcc mbaam dëgg la bàkkaar la doo ci am tuyaaba dem sàcc mbaam bàkkaar ak sàcc dong la waaye fii boo fi ñëwee maam xas saxaaba yi ci moom boo ko def da nga génn ci lislaam sàcc génnu ci lislaam de sàcc dafa tooñ dafa jël àq jàmbur te it def na lu bon te it lim def na gaaw bàyyi ko tuub waaye kii moom daa bokkut ci lislaam saxaaba yi ku leen saaga bokkutoo ci lislaam kon mu ni ko nga dem nga sàcc mbaam nga delluwaat ca la nga nekkoon nekk sàcc katu mbaam fi ne moo gën lii nga nekk nii waa ji loolu ci la ko suñu borom defalee tawfiq kon ci ngay xam ni saxaaba yi war nañ leen a xam war nañ leen a tuddee sunuy doom war nañ leen a jàngal sunuy doom war nañoo sonn ci yar suñuy njaboot pour xam leen benn borom xam-xam dafay nettali nee na day def saabu xale yi waaj a tëdd rek xam naa xisa bi su ma ko nettalee tey ñi yàgg fekkee dundu Omar ndax yàgg naa leen a wax ni ci bu ñuy wax ci dundu Omar ibn al-Khattab kuy déglu day yaakaar dañoo far ak moom fekk déedéet Abubakar féete nañoo ñëpp kaw waaye da di bëgg dana yegg ci nit ki foo xam ni daanaka yow da nga yaakaar ni kii moom diw doong la xam ci saxaaba wala moom rek la bëgg waa ji day def saabu guddi bu jot day dajale njaboot gi nettali leen dund saxaaba yi wala dund yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na benn bis mu muy def dund Omar ibn al-Khattab nee na xale yu ndaw muy wax dund Omar di wax dund Omar bu yàgg mu sentir ni xale yi ñi ngi jooy ndax xam naa affaire bi dugg na leen xale yaa ngi tàmbalee jooy léegi mu war a jeexal xam nga kuy tàmbalee jooy nga naa ko rey nañ ko dañ koo jam ci jàkka ji xam nga kon yaa ngi bëgg a yokk jooy léegi nag mu def dundu Omar ibn al-Khattab bay agsi fi muy faatoo mu gis ni fi mu nekk nii nag wax dëgg yàlla mbir mi jéggi na dayo mu arrêté fa dars ba léegi bi mu fa arrêté dars bi xale bi moom kon jàpp na ne Omar deewagut ndax moom gone la xamul sax ba xew Omar ni mu bañee woon lu bon ak ni mu doon génnee ci mbedd mi yor aw yatam di réglé nit ñi nee na xale bi dafa génn dafa génn ci buntu këram ànd ak yaayam di dem marché fekk papa ji liggéey na mu gis benn gone gu jigéen gu gu gu gu gu sol lu bon mu daal di daw yuuxu katafu yaay ji ni ko demal woo Omar ibn al-Khattab mu ñëw def kii lu bon waaye mu sol lu jot parce que lim doon dégg ci leçon bi naka lay nettali moom xale bi parce que jàpp na ne Omar mi ngi dund ba léegi yaay ji naxtaan ko ba continuer dem ak moom nee na bi ñuy dellu si ñu ñëwaat ba ci yoon wi mu rombaat keneen koo xam ne xam naa leen ci ay mbonte lay def xale bi nag di la ko jooyal ay jooy yoo xam ne àpp ko nag ba kër ga ñu du noppi mu ne yaay ji faw na dem moom pour moom Omar ibn Khattab moom démb ci ngoon la faat la fi nekkoon mu wax yaay ji ni ko sama papa su wàccee wax ko na woo Omar ibn Khattab mu ñëw lii na fi jóge léegi yaay ji nee na mu am problème parce que li tax mooy xale bi moom gëm na ni Omar faatoogut kon ndekete ndax Omar bu fekkente ni mi ngi fi mbonte yi da ko war a dindi xoolal xoolal boobu jeexintal ni mu ko defee ci gone ji qissa bu gudd la waaye maa ci tënk tënk loolu rek ngir nga xam ni yooyu dafay def ay jeexintal ci nit ki di ko tàggatee ak njabootam ngir ñu xam ñan ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokki julli li ñu xam ni saxaaba yonent sa sallam hum xayrul xalqi baada al anbiyaai wal mursalin saxaaba yonent bi su yonent yàlla yi jàllee ku dul yonent yàlla yi ci kaw suuf laa wax saxaaba yi ñoo la gën yonent yàlla yi laa wax bu ñu jàllee min ladun aadama alayhi salaatu wassalaam ila yawmi albaati wan nushur bakkan bu fi mës a judd ci àddina te nekkoo saxaaba saxaaba la gën hum xayru lxalqi baada al anbiyaai wal mursalin ala al itlaq loolu ku ci am xilaaf rek yow yaay charge te ar riwayatu charge moom daanaka kenn du ko jël laa tuqbal charge mooy mbooloo mi yépp ànd ci dëgg yow nga ñëw nga feddi géew wax leen lu wuteeg loola ko kenn déglu say wax saxaaba yi ñoom ñoo gën ci mbindeefu yàlla yi bu anbiyaullahi yeeg jàllee te it seen maas ga seen génération ba hum xayrul xarn xayrul qurun comme ni ko yent bi waxee salaa sallam yent yàlla bi ne xayrun naasi qarni déglul lii waxu yonent bi la génération bi gën ci génération yi maas gi gën ci maas yi ah léeg-léeg nga dégg ñu ne ñoom jiw léeg-léeg nga dégg ñu ni ba jamonoy bay jiw léeg-léeg nga dégg ñu ni jamonoy ñoom bay jiw d' accord ñëpp nañ baax ku baax it nag yàlla dana la fay insha allah ku ma suñu borom dana la fay waaye ak lu mën a xew gëmal ni génération bi gën ci génération yi kaw suuf mooy saxaaba yi yonent bi moo ko wax de xayru naas génération bi ci gën ci nit ñi qarni mooy génération bi àndoon ak man summa alladina yalunahum génération ba ca topp topp ca summa alladina yalunahum génération ba ca topp topp ca ba daanaka day am ñetti téeméeri at wala lu ko jege nga xam ni mooy tombeek jamono joojee nga xamante ni ca la saxaaba yi di jeexee taabiun yi jeex fa taabiu taabiun yi fekk ñoom ñooy dund moo tax benn bis yent yàlla bi nee na di ngeen xare gañe fii ku gis yonent bee ngi ci mbooloo mi te di ngeen xare gañe fii ak ku gis ku gis yonent baa ngi dund di ngeen xare gañe fii ak ku gis ku gis ku gis yonent bi saa salaam mi ngi ca te loolu saxaaba yi dañ koo gëmoon kon xam seeni mbir lu jaadu la mbokk jullit xam seeni jikko loolu lu jaadu la xam seenu doxiin ñoom nan doon dundee loola lu jaadu la ndax ñii lan la wax ni soo melee ni ñoom rek baax nga fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw gis nga ñii ñëw ci seen gannaaw sunu gindee koo tege ci yoon wi comme yéen ni ngeen mel faqad ihtadaw jub nañu wa in tawallaw buñ melul noonu fa innama hum fi shiqaaq lañ nekk ca jàdd na yoon wax alquran la de yàlla dani fa in amanu bi nit ñi gëmee bi misli ma amantum yéen bihi ci li ngeen gëm ni ngeen mel ni ngeen baaxee ñoom suñu ñëwee fas yéenee mel noonu faqad ihtadaw kon tege nañ ci yoon wi wa in tawallaw bu melul ni ngeen mel jéemuñ nee mel jéemuñ cee jaar fa innama hum fi shiqaaq xamal ni fañ jaar du yoon wax fa sa yakfikahum allah mbokk yi ñooñu laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab ñooñu waxtaanee seen dund waaru ak defaru nekk na ci ñeel ki nga xam ne yàlla def na ci moom xol bu nar a jariñu ndax xam ngeen ni njub lu mu jub jub même alquran sax boo ko jàngalee xol ku suñu borom nammul ci moom njub tus du ko ko jariñ waaye ñii moom bu yàlla nammee ci yow mbaax as toq soo dégg ci seen dund dinaay faral di wax ci dar saxaayat saxaaba yi gis nga ku séeneen dars boo ñëw rek am foofara séeneen xam nga li ñu naan séeneen mooy ko xam boo gisee lii bu gisee lu ko rafet daal di jàll gis nga saxaaba yi bu ñu la waxalee dund diw nga ni man moom féetewoo naa ko tippoo naa ko gis nga beneen dart bu ñëwee ñu wax da ngay fàtte kan la waxoon ndax kenn ku ci nekk ak defaru guy fësal melokaanu yonent bi nga yore woon sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi mbokk yi hum xamalatul islaami wa xafadatuhu baada rasulillah l'islam jii nga nekk tey lu la waay mën a wax lu dul saxaaba ya ñoo defoon ab effort dajale ci yiñ ca war a dajale pour ñeneen ñi jot jot ci luñ la wax lu dul loolu lañ la wax des na ñoo doon sonn boole di xare yore seen kër ah am ay tool am ay boutique am ay ay ay ay gëléem am ay njëgg tey def ay commerce am ay soxla comme yow malgré loolu lépp teewut yittewoo nañ ba xam li yonent bi saa salaam soxlaa jox xeet wi ñoom danañ ko jottali ridwanullahi alayhim ajmain sahaaba yi mbokk yi ixtaarahum allah wa astafaahum li soxbati nabiyi ñoom sunu borom moo leen tànn ngir ñu war a ànd ak yonent bi moo xam góor ña la moo xam jigéen ña la même jigéen ñi nga xam dañoo fekkee woon dundu yonent bi du woon dañoo jamononte wala par hasard nii rek ñu daje déedéet yàlla ni mu tànnee góoru sahaaba yi noonu la tànnalee yonent bi jigéen ay jigéen yoo xamante ni ay saxaabiyaat la ñuy doon wa nashri risalatihi min baadi te ñoo doon tasaare woote bi yéen sasalam mbokki julit yàlla xam ne ne buñ lay wax saxaaba yi niñ wasaaree lislaam tey jii daanaka yow da nga yëg ni yow tàmbalee goo sax def dara keroog bi yonente bi alayhi salaam defee xajjatul wadaa wax ni ku fi nekkut na jottali fal yuballig shahidi min shahida minkum alghaib ñi absenté seeni responsabilité yéen ñii may waxal na ngeen leen jottali li ma wax wallahi mbokk yi sahaaba yu bari ci ñoom bi ñu déggee responsabilité boobu la ñu takk seeni kaaka ni madina wan nañ ko gannaaw ba niñ faatu dem si wuñ fa da ngay dem Syrie dem réew yi ko wër yëpp Iraq Palestine yi wër yëpp nga xam ne ñu tuddee Syrie tey nga dem ca fa gën a sori ca Inde nga dem fa gën a sori ca Égypte Misra te xoolal diggante yooyu ni mu soree nga xam ne ña nga jóge Madina nga dem ba am ñuy dugg Afrique kenn ku ci nekk lan moo nekkoon yitteem mooy yonent bi moo ma yóbbante te yóbbante bi dama ko war a jottali allahu akbar yonent bi moo ma yónni sallallahu alayhi wa sallam lan la ma yónni mooy jëf ji nañ ko jottali saxaaba yooyu mbokk yi yàlla moo wan ni ñu maandu lañ ñu jub lañ foog naa ni yéen a ngi déglu fan yi passé benn débat boo xamante ni ñu ngi ko def ci seen yenn ci seen seen télévision yi kenn ci ñi nga xamante ni ñoom daanaka xaw ma xaw ma ay boromi xam-xam lañ leen di tuddee xaw ma ay boromi xam-xam lañ ah di wax ndax saxaaba yi maandu nañ wala maandu wuñ man damay wax ne gis nga kooku foofu ñu ko fekk dañ ko waroon fekk toqum noppam dóor ko ba mu bëgg a dee gis nga saxaaba yi maanaam dañoo maandu ñoom ñëpp saa boo ko weddee weddi alquran moo cay topp parce que ñoo la jox alquran di mbokk yi saxaaba yi du benn saxaaba moo solo alquran ñu jox ñu ko de ay sax dañ koo dajale ci nit ñi xadis yi yéen sa salam saxaaba yee ko dajale moo tax imam abubakar ibn al arabi dafa waxoon ci am solo wax ju jar a déglu soo demee ci téere bu jël al awasim min al qawasim ibn taymiya mi ngi koy nettali sax wax ju mel noonu abu bakar ibn al arabi dafa wax ni dafa am ay nit yoo xamante ni yonent bi lañ bëgg a saaga te xam nañ ni buñ ko saagaa seen bakkan du ko fekkee léegi nan la ñuy def dañu koy jaara ci saxaaba ya saaga leen nga yaakaar ni saaga saxaaba moo gën a simple saaga yonent bi mu ni saaga saxaaba ak saaga yonent c'est la même chose lan moo tax mu ni parce que kii moo jotti li waxi kee wolof yi dañuy wax ni su ma la yónnee demal ci bàyyi diw nee ko mu aal ma rattu demal neel bàyyi diw mu aal ma rattu nga ni ko waay nangamtaan daal di wax lu bon mu ni saaga woo xale bii nga ni ko waay nangamtaan nga jóge fii xam nga dafa mel ni xale bi nga saaga mu ni déedéet ka ko yónnee nga saaga ndax boo amoon respect ci ka ko yónnee doo saaga kii gis nga wax yooyu wax yu ñor la moo tax képp ku la waxal lu bon ci saxaaba yi rek yëgal ni ci yonent bi la jëm sallallahu alayhi wa sallam bal sax nag huwa alxaq wal xaqiqa bal dañuy wax léeg-léeg boo wax lu ëpp ci yonent bi alayhi salatu wasalaam sunu borom seedeel na leen ay yooni yoon ay ayaat yoo xam ni saa boo ko déggee rek ndeysaan sa xol day sedd من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يلا مني جولي جيكم يلا امنا ci ay goor ak ay jigen yu set wecc yu sel lol yalla jaral len lepp loolaay sabab ci lan diggante woon ak seen borom lépp matal nañ ko doog a faatu allahu akbar sadaqu ma ahadullah alay lañ diggante woon ak seen borom ci daañ ko jaamu daañ topp yonent bi daañ def nangam ak nangam mu ni yooyu de matal nañ ko fa minhum am na ci ñoom ñoo xam ne qada nahba ndeysaan yëf yi ci yoonu leen fekk ñu faatu gis ngeen ak sahabiyul jalil julay bii ba dars bii paas moom lañ def bokk na ci mi man qada nahba moom moom dem na te ci yoonu la dem ndax ca xare la faatoo te nekkoon ci service yonent bi gis ngeen saxaaba yi ba nuroog moom zul bi jaa day ni lan la yonent bi waxoon e yow yàlla seedeloo naa ni kii tey ci ngoon gërëm naa ko te mi ngi nii faatu na kon nag bu yeba nga tey ci suba gërëm naa ko sa yeba nga gontu gërëmal ma ko maanaam daal kon faatu na mi ngi gontu dem àllaaxira kon bu yegsee gërëm ko ndax gërëm naa ko kooku bokk na ci man qada nax ba ak saxaaba yi nga xam ne ñëpp faatu nañ ci njub sunu borom ne minu man yentasir am na ñoo xamante ni faatoogu ñu ngi xaar seen wàll waaye wa ma baddalu tabdila dara soppi wuñ ko changé wuñ roofuñu ay bidaa ci seen diine déedéet juyoowuñu ak yonent bi parce que ñemewuñ ko waxaluñ ko lu amul parce que seen xel xalaatu ko mboolem li nga xam ne yonent bi doon na ko jottali loo ñoom jottali nañ ko رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يعلمني رجال أي غورنجي أك أي جيجين ay góor a ngi ak ay jigéen yoo xam ni laa tulhihim tijaratun laa tulhihim du leen fëkk tijaratun commerce bu dox wala bayun wala bi yaxantu njaay ak jënd an dikrillah ba niñ war a tuddee seen borom mu manqué mbaa mu des billahi alaykum wa alayya kenn ku nekk ci ñun na wax digganteem ak yàlla nga xam ni moom rek mooy wéet ak bàmmeelam bu naxee boppam moo nax boppam te moo ko yëg su tegee boppam place bu mu amut tamit mooy perte parce que kenn du ko fay loolu tuhibbu an tuhmada bi ma lam tafaal kenn du la ko fay nattal sa diggante ak yàlla nga xool yow ñun lii yàlla seedeel saxaaba yi ñoom ak ñun fan la nu toll laa tulhihim tijaara commerce bi jaay ak jënd yaxantu bi conteneur yi wàcc chèque yi lépp ak noo ko mën a tuddee ci xeeti commerce yi am ci àddina amu ci benn boo xam ni sabab lay doon ci seen ak julli gaaw mbaa ñu para paraxee ko sabab lay doon ci seen am njàng alxuraan wàññeeku sabab lay doon ci seen i askar wàññeeku kenn ku ne ci ñun tàmbale ci man mi wax nan natt suñu bopp ci lii mbokk yi am na ci ñun ñoo xam ne ay jàmbaar lañ ñu ngi góorgóorlu waaye bu ñu tollee ci seen diggi activité daanaka mën naa ni seen i baaqiyaat saalihaat sax du mat am na ci ñun ñoo xam ne ay jàmbaar lañ macha allah waaye yàlla xam na ni mën nañ nekk ci activité mën ngaa toog semaine yàlla doo jàng alquran te loolu moom ak dee la magum feebar ibnu taymi da doon wax ni sama wér bi ma ja war a jàng ci alquran ak zikr yi ma war a def damaa ragal ni su ma xëyee defuma ko su ma yëkkati sama tànk bi tànk bi day paralysé du mën a dox parce que loolu mooy dundal ruux gi mooy dundal yaram gi sunu borom ni ñoom day li nga xam ni mooy commerce jaay ak jënd signanti ay chèque tukki yéeg avion wàcc wala boog yenn say saako wala sa liggéey wala xeetu liggéey boo mën a yore ci àddina ak loo mën a def ci àddina métti boo mën a yore nag yàlla mu ni ñoom laa tulhihim tijaara commerce bi wala bayoon yaxantu jaay ak jënd ak xeet yi am ci àddina yépp nag laa wax ak looy liggéey bira ba ngay dugg ak a wàcc bira ba ngay dugg ak a wàcc ci ron kilim yi ngay nekk ci ron naaj wi ngay nekk ay saako ngay yenu ay chèque ngay joxe caissier nga comptable nga chef de chantier nga loo mën a doon ak loo mën a liggéey laa wax dugg na ci biir ñoom laa tulhihim tijaara wala bay an dikrillah foo leen fekk rek seen xol yaa ngi fees dell ñoom saxaaba yi ci di tudd yàlla ak di ko fàttaliku wa iqaami salaa seeni julli dara du ci manqué ak lu liggéey bi dox dox dara du ci manqué dara du ci manqué waxuma laay naafi la de waaye ñun dama ñi sa digg liggéey dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg say farata sax du mat saasaa ngay gis ci ñun koo xamante ni ma ngay julli daanaka mën naa ni yitte jëm war a jëm mooy tax përëx përëx lay def julli gi dem yoonam yaa xi yow da ngaa xamul ni mën ngaa përëx përëx julli ga génn dee fii loolu nga yuutu ci est ce que dana nekk sa wërsëg est ce que di nga ci jot boo ci jotee est ce que di nga ko jariñoo boo ci jotee mbaa doo ko fajoojiwaat après moo tax cheikh abdallah bassam dafa wax ju am solo bi muy charx bulughul maram am na téere bu mu tuddee tawdihul ahkam fi charx bulughil maram bi mu yegsee ci wàllu julli dafa wax ni léeg-léeg nga gis imam kabbaar am koo xam ni balaa imaama sujoot sax njëkk na dem mu sujoot yàkkamti mu ne loo yàkkamti mu ne loo yàkkamti yàkkamti yàkkamti doo njëkk salmal imam moom bu soobee yàlla xoolal wax jooju ni mu amee solo te nun daf ñuy daal da ngay gis koo xam sa yàkkamti gi nga yàgg fi nga bëgg a dem sabab lay doon ci balaa imaam siggi ci rukoo bi sax sikki nga fekk sa xel mi mi ngi nekk ca la nga jëm mu ne loo yàkkamti yàkkamti njëkk koo sëgg njëkk koo siggi njëkk koo rukkoo njëkk koo lo waaye bu yeboo nga xam ni moom ak loo yàkkamti yàgg bala ngaa sëlmal dina sëlmal di kon loo yàkkamti jëru ko fi ne mënoo gaawantoo gaawantoo gaawan ba génn ci julli te imaam sëlmalagul kadalika natt ko ci kenn ku ci nekk bu fekkonte ni sa bopp ca la jëm sunu borom ne wa itaay zaka ak joxe li ñu war a joxe ci seen alal wallahi yàlla xam na ni mbokk julit yi léeg-léeg siiratu salaf da ngay jàng ñoo xam ne da nga yaakaar ni ñii sax ñoom danoo far bëggul woon sax alal ankay alal ñëpp ko bëgg parce que da nga ciy dund parce que da nga ciy jëriñu waaye da ngay gis ni génn seen alal def ko ci yoonu yàlla subhanahu wa taala des ak yàlla sacrifice yu bari yu ñu yàgg a def la moo tax ci biir saxaaba yi ngay gis ay nit yoo xam ni kéemaani yàlla lañu woon ci joxe defe naa yéen a ngi fàttaliku man da alladi yuqridu allaha qardan xasanan bi ñu koy tafsir bi yàlla ne kan mooy lebal yàlla bor bu rafet sunu borom fay ko sunu borom ndax dafa ñàkk ndax dafa amul ndax bor effectivement la soxla déedéet borom xam-xam yi tafsir dañu wax ni kan mooy jël ci li mu am dugal ko fu yàlla gërëm wala mu jox ko ku ko soxla ngir mel ni kooka kat garanti gi mooy sunu borom moo koy fay benn saxaaba bu ñuy wax abu dahdah dafa ñëw mu ne ko yonent bi xam nga sama tool bi ñuy wax bayraha mu ne ko xam naa ko de benn tolloon boo xam mi ngi ci ginnaaw madina tool bi dafa nekk ci taati tàndarma mat nañ juróom benni téeméeri taat xam ngeen ni juróom benni téeméeri taati tàndarma ci ku xam tàndarma ci valeur am ci jamono jooja nga xam ni ci la ëppoon sax tey tool bi mi ngi am benn xe- teen boo xam ni neexitu ndox mi sabab la yonent bi sax léegi daf daan dem foofu di naan mu ne ko yonent bi xam nga tool bi mu ne ko bañ a xam mu ne ko yëgal ni bis ni ki tey tool bi yëkkati naa ko lebal ko yàlla allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko sarax bi gën de mooy bi nga def ci say jege ñaale séddale ko say bokk mu ni tipp tool bi séddale ko ñi nga xam ne comme jox na ko yàlla ba noppi yonent bi jox ko ndigal mu séddale ko ñi nga xam ñooy ay jege ñaale ndax xam ngeen sarax bokk na ci la ca gën mooy ki la gën a jege ci wàllum dara ka ca topp topp ca ka ca topp topp ca ila axirihi ak yeneen i misaal yoo xam mën nga koo joxe sunu borom subhanahu wa taala mu ni li waral loolu mooy yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar mooy ñoom kat fu ñu toll rek seen fit wi day tiit ci bis boo xam ne bët yi day buqeeku xol yi dafay tiit ndax kenn ku ci nekk rek sa muskila mooy asaqiyun am saayid ndax damay texe wala duma texe ndax damay texe wala duma texe fa minhum shaqiyun wa said yàlla mu ni am nañu nar a alku am nañu nar a baaxle fan nga ci nar a bokk la adri la tadri wala adri wala yadri gayruka aydan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم yàlla mu ne wa saabiquun al awwal yéen a ngi fàttaliku gaa yi yàgg ya gaa yi nga xam ne ca njug mu njug mu njëkk ma lañ jógoon da ngay dégg ñu ne ah diw daa jógoon te jug mu njëkk ma loolu da ngay dégg wolof di ko diw dafa jógoon te jug mu njëkk ma wasaabiquuna al awaluun yéen a ngi fàttaliku gaa yi borom xelu yaatu ya nga xam ne ci juggu njëkk ga lañ jógoon min al muhaajiriin ñi bokk ci muhaajiruun yi wal ansaar ñi bokk ci wal ansaar walladina tabacuukum ak ñu ñëwoon ci seen gannaaw bi ixsaan yëgal ni mën nga cee bokk yëgal ni mën nga cee bokk de ndax walladina tabacuukum bi ixsaan borom xam-xam yi am na ñu wax ni du taabicu ñi kese de donte nag li gën a dëgër mooy taabiuni la waaye am na ñu ni déedéet mboolem ku teg sa tànk fañ tegoon seen tànk rek wàccoo ko rek da nga cay dugg sunu borom ne radiyallahu anhum yàlla mu ne gërëm naa leen waradu anhu kontaan nañ ci ñoom wa aadda lahum jannatin sunu borom waajal na leen ay ajana yoo xam ni tajri min tajri taxtaha al anhaar alquran foo fekk tajri min taxtiha lay àndal ba des ji ji kese moo am tajri taxtaha tajri taxtaha amul min al anhaar rot xaalidina fiha abadan sunu borom dañ fay sax dàkk duñ kenn dalika lii ngeen gis al fawzu al azim mooy texe gu mag ji kon mbokk yi innahum nawun farid min ar rijal lam taarif al bashariyata lahum nadir ñi mi mbooloo génération lañ boo xamante ni ñoom moom ñoom daal boo doon wër àddina àddina mësta wàcce ci kaw suuf bu yonent yi jàllee góor yu mel ni ñoom xam nañ romain yi ak niñ meloon xam nañ grec yi ak niñ meloon xam nañ perse yi ak niñ meloon xam nañ indo yi ak niñ meloon xam nañ ñi nga xamante ni ñoom ñooy niti aad ak niñ meloon xam nañ niti samuud ak niñ meloon ñii demoon ba am capacité mën a yett ay néeg ci montagne yi wa tattaxituuna min aljibaali buyutan faarihin fa li atabduuna bi kulli riicin ayatan tacbasuun wa tattaxiduuna masaanica laallakum taxluduun wa ida batashtum batashtum jabbaarin boolem capacité yi ñu amoon yépp dama ni saxaaba yi mëseesu la gis ku mel ni ñoom ak ñee liñ am am doole ak li ñu gudd gudd fan ak li lépp luñ mënti am bi saxaaba yi ñëwee bopp bi nañ loolu lépp dajale ko ci seen biir tey nag min ladun aadama alayhi salaatu wasalaam ba keroog malaaka mi wal bëft bi saxaaba yi di mbokk yi ñoom de drapeau bu njëkk biñ samp ci wut ngërëmal sunu borom këf nañ ko dem seen yoon drapeau biñ njëkk samp ngir wutee ko ngërëmal yàlla akub yonenteem drapeau moom saxaaba yi jël nañ ko dem seen yoon boo dikkee ci ragal yàlla ca njom mboxtal gi nga leen di fekk boo dikkee ci ragal yàlla ca njom mboxtal ga nga leen di fekk seen ak ragal yàlla àggoon na ci yu sew sewaan yi nga xam ni yow da ngaa jàpp ni yii du dara ñoom yooyu daf leen doon tiital ba doon leen jooyloo soo dikkee ci li ñu tuddee wara muy fegu wala iffa moytandiko fegu ca njom mboxtal ga nga leen di fekk yàlla xam ne da nga ciy séq ak nit dara ngeen koy xëccoo mu wóor ko ne moom moo ko moom waaye jëmmi xëccoo am na rek mu ni kon lënt la bàyyee naa la ko mu jeex te wóor na ko ne lim bàyyee moo ko moom fekk lépp mi ngi dugg ci buntu fegu ak moytandiku taabioo ñi it kadalika noonu lañ meloon soo dikkee ci sellal nag moom daanaka da nga naan bàyyi koog ñoom fexe ba li ngay def jëmmi suñ borom ji rek rek rek tax ñu ni yow la taxul ngay def taxul ngay wax ñu ni moom la taxul ngay wax taxul ngay def bëggoo feeñ bëggoo fës bëggoo siiw say jaamu yàlla li nga baax le bëggoo ko ko tudd say ñaawteef ku ko tudd sax nga kontaan ci ñun bu ñu waxee dëgg te xam nañ ñemelul noonu déedéet ñun contraire bi lañ saa bu ñu waxee say mbaax baax nga sënkali ko yëg tuuti féex day mel ni daa am luy upp sa biir xol bi waaye saa bu ñu tuddee say ñaaw ñaaw nga mer ñoom boo leen doon tuddal seeni ñaaw ñaaw ñoom loolu lañ bëgg waaye seen benn bu baax boo ko xamee ba nga tudd ko rek mën nañ laa mere yàlla xam na ni imaamu dahabi mi ngi nettali ci seeru alaami nubala waajoo xam ni xam nga lan la bàyyee morom mi bàyyi ko tifaaxan du ko seeteeti jaamu yàlla gum doon nëbbu kii feeñal mu ba ko tifaaxan la tifaaxan salaamaaleykum aleykum salaam ñi ma ko bañ a wax daal dina ko wax waaye gis nga bu loolu jàlleen ba ni mu faatoo nangootu la jëflanteeg moom lu tax sama jaamu yàlla gi may nëbbu lu tax nga di ko wax ndax yaakaar ngeen mbokk yi ka ko doon wax siiwal ko wala yàqal ko la ci jublu woon déedéet amaan circonstance bee ko laajoon mu wax ko ngir jàpp ni defar la ci jublu foofu maa ngi ciy profité mbokk yi te defe naa lii ukarrir wala azalu ukarrir ndax takraar dana jariñ nañ bañ di yàqalante ci buntu jaamu yàlla bakkan dafa gaaw a beew bakkan dafa gaaw a beew te inna nafsa la amaarat bi suu te kum mën a doon borom xam-xam ba ba ca ka xamul dara ba ca nitu yàlla ka ba ca góor ga ba ca jigéen ga gis nga ay yu baax yi nga ko xamal bul ko di wax ci kanamam boo koy wax waxee ko fenn wala na ko sori ndax li waral loolu mooy nit la yàlla bindee yu baax yi ah yow kay eh yow kay moom macha allah yow kay façon yooyu baaxul dafa yàqal nit loolu baaxul loolu nañ ciy dimbalante ah macha allah yow kay yàlla na macha allah yàlla na yàlla dëgëral la jeex na amul doy na su fekkee mu yëg ko dong la doy na loolu yëg na ko su fekkente ne lu baax nga ko yéene ñaan gi ko ñaanal doy na sëkk waaye la leen nga dégg ñuy wax ay wax yu ëpp ci nit xëy na sax su fekkoon dañ koy wax feneen te léeg-léeg mën na ko wax feneen mu ràmba àgg ci moom bu faatu woon na tey yées bëgg a wax waxal waaye nit ki fii mi ngi dund yi nga ko xamal ci yi nga jàpp ni ah gën a la góorgóorlu mbokk ah man de xam naa ne alhamdulilah jàmbaar nga waaye nag dina la góorgóorlu ndax ku naagu daagu tey nag jant bu soogut la juubu weesagut li muy jàmbaare jàmbaare yaa ngi koy jam ay bal yu koy tiital jamono jooju sa xol bi mi ngi fees ci kontaan ci moom ci bëgg koo tàgg ak nga yéemu ci moom waaye wax ji nga ko wax moo baax ah yaa xii man de macha allah gis naa ne wax dëgg yàlla jàmbaar nga yaa ngi góorgóorlu waaye nag wattandikul de bari nañu jàmbaare ba àgg ci njomboxtal ga rek xalagu daanu ci suuf gis nga lii boo ko waxee nit wallahi yaa ngi koy tiital jamono yële passé ci at yële passé dafa am benn masala bu fi amoon mooy masala bi ngeen tuddee bayaa avant muy am dama jàngale darsu bulughul maram ba not ma génn bi ma génnee kenn ci ñi doon jàng nga xam ne maa ngi koy fàttaliku ba tey xam naa àll wam bu àggoon am mayeete sax passé wu ko mu ne ma nikk daal di may nuyu ne ma mbokk ma ne ko naam mu ne ma maa ngi lay dénk ragal yàlla ak sellal li ngay def ndax boo ko deful da ngay perte parce que mbooloo mi yëpp ci la déglu fi ne li ngay wax gis nga kàddoom googu boobaag léegi mat na juróom-ñaari at saa su ma ko fàttalikoo daf may tiital yàlla dogal ñu dem ay at ay at ñaari at ci ginnaaw seen masala boobu feeñ bi masala bi feeñee mu gàddaay ma gàddaay gi mooy dootul salaam ala kalam du ma wax ak yow mere na ma di wax ci man lu mu war ta wax di wax yu ñaaw sax loolay dox ba teg juróom ñaari at lii may netti li am na mbokk mu nekk ci jàkka ji fekkee na ko ñoo ànd jamono yi passé may dox nekk ci oto ba séen ko mu tëdd benn place ma ne kii de daf maa gàddaay waaye kii moom faw danaa wàcc dem ci moom lu tax njëkk lam ma defaloon du ma ko fàtte mukk ndax kàddoom googu karwaase na ma ci biir xol te yëgu ko te moom mi ngi ma gàddaay mënoon naa dem mu toroxal ma mënoon naa dem mu waaye yooyu yëpp dama jàpp ni la ko ëpp fulla mooy lam def dafa rëy ba loolu maa ngi koy nettali ngir ñu jàngaare ci ni gis nga nit ki lu baax li mu am lu mu tuut tuut tuut jàppee ko loola jéggalee ko lu safaan ya alhamdulillah yàlla def tawfiq bi ma yeex see lawoon na nekk daa mel daa woon ni ma bett ko lool mu jug song ma kott ma ñu nuyoonte ila axiri mu jël sama ba ñu ngi jokkoo fi mu toll nii lan laa jublu ci nettali wala lenn ci yi ma jublu ci nettali gi mooy nit ki li mu am ci safaan nangulee ko benn bi mu baax le muñal ko juróom-ñeent yam bonle ñaareel bi mooy kàddu yu mel noonu moom lañ soxla ñun di ko dimbalantee suñu biir ku mën a doon nag borom xam-xam ba góor ga jigéen ga mag ba ndaw la wala benn action boo xamante ni kenn ci mbokk yi def na ca lu am solo loo xam ni ñëpp yëg nañu jariñu na ah mbokk macha allah tey moom wax dëgg yàlla def nga nangam wala démb wala barki démb waaye nag góorgóorlul de yéeg ba ca kaw xalangu daanu moom ñu bari def nañ ko xam nga kàddu googu soo ko waxee dana yëg ne ah kon kat li ma def moom baax na alhamdulilah waaye loolu du ci mën a noyyi parce que li tax du ci mën a noyyi mooy galgal bi nga ko galgal moo koy tiital kon saxaaba ya buntu bii moom ñoom dañ ci daan dimbalante buntu bii ñoom dañ ci daan dimbalante bari waa na ay jëf yu ñu daan def di ko nëbbu dañoo faatu mu doog a feeñ soo dikkee ci ragal yàlla nag ak sàkku xam-xam ak woote ci yoonu yàlla defe naa ñoom ñoo ci ay làmp yu leer nañ ñi di niital ñoom day amul lenn loo xam ni lu ñuy jaamoo sunu borom la mu dig njub lu dul jiitu nañ ca gépp jaamu yàlla lépp luñ tuddee jaamu yàlla di ca góorgóorlu te saxaaba ya jiitu wuñ ca boo baaxul billahi maa la ko wax lépp lu ñu tuddee jaamu yàlla ak lu mën a doon ak ku ko mën a woote ak fu mu mën a nekk ak ku ko mën a baaxal te tuddee nañ ko ak jaamu yàlla te saxaaba ya ridwanullahi alayhim boo leen yeewoon yeewaa badar yeewaa uxud ah laaj leen ko ña teewoon bayaatu sajara ñetti téeméeri ñu teg ñu lu topp xam ngeen wala ñeenti téeméeri ak topp xam ñun xamuñu ko doog a jaamu yàlla bul ci sonal sa bopp moom laay faral di wax ni walis woo yëkkati mu diis tegal bagage yonent bi yépp a neex a yóbbu walis woo yëkkati mu diis tegal bul sonal sa bopp bi daa ca nekk wa ma jaala alaykum fi diini min xaraj laa yukallifu allahu nafsan illa ma ataaha laa yukallifu allahu nafsan illa wusaha yuridu allahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra yuridu allah an yuxafifa ankum mbokk yi aaya lu muy tekki yàlla neen dama bëgg mu yomb dama bëgg mu oyof ci yéen ah damaa bañ mu diis ci yéen façon aaya yi ma jàng yépp loolu lay tekki kon saa boo amee lenn luñ naan ak jaamu yàlla nga yëg ni diis na gan ba kenn mënu ko jàppal ne gii moom yonent bi jàngalewu ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom day mbokk yi ndab la ba leen ko yonent bi joxee sallallahu sallam mu def meew mi mu weex tàll di diine ji ñoom fexe nañ ba biñ koy jox génération yi nekk seen gannaaw benn taq-taq benn tilim tilim amu ci ubbi nañ dënn yi waaye ci maandu te lañ ko ubbee nag ak jàng alquran ak di ko jàngale ñu bari dañoo yaakaar ni lislaam moom xare xeex reyantay bakkan tuur dere ci la tasaaroo wallahi ku wax loolu juum nga juum te lu rëy dëgg la islam day ñëw gaaral la ci njekk ak teraanga elof nee na ku xamut buur saay na nga xam buur dee na gis nga xaalit mas naa dem ci benn xare abaa muy ndànk bay xam ñi ay julli duñ ay julli mu ray leen yonent bi dafa mer sallallahu alayhi wa sallam yëkkati ay loxoom ci asamaan ni yow yàlla xaalit li mu def tey jii dañ naa ci sec ci wit digaluma ko dégage ay responsabilité yépp kon xam nga ni li ñuy tuddee violence loolu amul ci l'islam fekk ay nit rey leen te defuñ dara loolu amul ci l'islam kon mbokk jullit yi ñu xam ni l'islam mi ngi wasaaroo ci convaincre nit ñi ci jàngal leen diine ak waar leen dëgg la dóorante ay jaasi ca la woon waaye loolu nekkuloon jubluwaay bi xam ngeen ni ku am am xel mbokk yi fekk ay nit comme ni ko ñenn ñi jàppee ne l'islam noonu la l'islam moom loo wax rek jihaad rek moo koy faj jub bi def violence rey ay nit damay laaj ab laaj mooy léegi yow su fekkente ni fekk nga ay nit yoo waroon a mën a waar ñu dugg ci l'islam defoo ko nga ñëw rey leen boo leen rey ban njëriñ la lay amal ñooñu xanaa nga waar leen ñu yokk ci mbooloo mi foog naa ne moo ñu ëppal sens fuuf ñuy wàññi mbooloo mi mbooloom l'islam mi nga waar leen jàngal l'islam ubbi seeni dënn tooyal seeni xol ba ñu dellu ci yàlla foog naa ne ku di borom xel ci wootekat loolu moo war a gën a nekk sa yitte ka fekk ay nit rey leen ndax bu leen reyee ñu dee tàbbi sawara bu dee yow li ngay woote woo dëgg la ci yow yéene bi ngay am mooy nit ñi nañu gaaw génn la jaral yonente bi salaam mu gis yahud bu ñuy suuli muy jooy sàggan nañ ba kii rëcc ñu yëg-yëg boobu nga war a am yow bokkum jullit ñi mooy ñi nga xam ne ñu ngi dee moo xam dañ leen a rey moo xam dañoo faatu moo xam dañoo dee ci réer yow da ngay méttit lu loolu méttit lu gi mooy da ngaa yéene woon ñoom nañu gindeeku balaa leen faatoo dikkal parce que xam nga ko gindeekuwul fan nga jëm boo faatoo mbokk yi saxaaba yi badalul muhaj yow ma baxila ahlu darahimi bi darahimihim keroog bi nit ñi nay nay loo ko ngott ngott lu kenn ku ci nekk dajale sa alal di préparer sa avenir ñoom dañoo nukki woon li ñu amoon lépp jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir na dina jëm ca kanam ñoom kat seen alal bu jotee ñu joxe ko seen bakkan bu jotee ñu joxe ko démb nga doon ceetal wala barki démb loolu amul ci benn jeexintal defe naa yéen a ngi fàttaliku julay bii ba démb lañ ko ay soxna ak dé barki démb la ceetal wala semaine bii passé lañ koy doog a may soxna deful benn jeexintal même bu jiyaat jotee doo xaar sax ñu lay jox ngant parce que bëggoo ko jàpp naa ni yooyu góor ak yooyee la jigéen ku leen xam da nga xam ni ñii rek ñoo mën a nekk saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom day sol ay yëre yu rafet nekkuloon seen i ambition tabax ay kër yu rafet nekkuloon seen i ambition nuur ci ay xeeti xéewal ba koo ci xool kanam gaa ngay larax larax yi nekkuloon seen i ambition déedéet ñoom day la nekkoon seen yitte dëgg dëgg dëgg dëgg mooy laa ilaha illa allahu wasaaroo ci kaw suuf waaye ñoom ngërëmal suñu borom ñee jëfe nañ lañ xam ci alquran ba faat dikkal leen ñii yenu nañ daaw bi fay fayeeg moom ba fa mën a yem ci àddina bi ñu delloo ko fa ñee ba yonent bi defee bayatul aqabatil ula fekkee nañ ko bi def saaniya fekkee na ko ñee ñaari qibla yépp julli nañ fa julli nañ qibla bi jëm ca baytul maqdis julli nañ ci qibla bi jëm fi nga xamante ni moom mooy ca kaaba ga ñee dund nañoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu bàyyi leen fi génn nañ seeni alal joxe ko waaye ba pare loolu doyu leen ñu wëlbatiku na war seeni fas rëppatal toppaat ci alal jooja ngir dem liggéeyee la nga xamante ni mooy yoonu sunu borom ngir mën a am la nga xamante ni mooy ngërëmam kon nag man kaana mutaassiyan ku bëgg koo roy ku bëgg koo toppandoo ku bëgg koo nuróol ku bëgg benn fans boo xamante ni moom mii daal moom ni mu mel noonu nga bëgg a mel fal yataassa bihim gaayaangoo ñooñu ñooy gaay yi royal ñooñu fa innahum abarra hadihi al umma ku dul ñoom ñoo la gën a baax ci xeet bi abarra hadihi al ummati quluba xeet yi ñoom ñoo ci gën a baax ay xol wa amaqaha ilman koo fi gis mu am xam-xam saxaaba yaa kapp xam-xam wa aqallaha takallufan def luñ la santut saxaaba ya bokkuñ ca wa aqwamaha hadiyan yoon wu ñu jaaroon moo gën a jub yoon wu keneen jaar ak wu mën a doon wa ahsanaha xaalan situation moom bu dee moom ci ngay gërëmee nit seen situation moo gënoon a baax keneen ku dut ñoom seen situation lii moo waral nag mbokk yi yu mel nii sabab lay doon ci ñu war di waxtaanee saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bu nekk ngir ñi nga xam ne ñoo leen di xas ak ñiy sabot saxaaba yi ak ñi leen di tuutal ak ñi leen joxul seen gëdd ak ñi nga xamante ni ñoom ñi ngi bëgg a fàtte ñan ñooy mag ñi dëgg dëgg dëgg di magi lislaam yi te ñooy mag ñi nag de la waaja waxoon humul kibaaru mag yaa ngi dëgg la nag ñun ñii sunuy maam ay mag lañ waaye sunuy maam ñoom sunuy mag lañ waaye mag yi dëgg lislaam moom bu ñuy wax mag ya mooy saxaaba ya de humul kibaaru wa min wa man min baadihim nasa'u humu sigaaru sigaaru diini wal ilmi mag yaa ngoog de parce que ku dul ñoom ñoo la mag di te it nag ñoo fekkee yonent bi di te it ku dul ñoom ñoo la gën di keneen ku ñëw ci seen gannaaw kat humu sigaaru bu dee ca ñoom moom gone ngay doon bu dee ci ñun mën ngaa nekk mag sigaarul ilmi wa diin bu dee ci xam-xam gone nga cay doon bu dee ci am diine gone nga cay doon moo tax réew yu mel ni sous région bi ñun sous région bi ak réew mel ni Sénégal moo tax gis nga yàlla yàlla ko kéemaane gis nga li tax mun a afalam yasiru yow xanaa yow yow yow xanaa génn mosoo génn gis nga boo gisee nit nekk ab seer dofe kaw kawe du xalaat nit ñi dañ naan ko yow xanaa mosoo génn xam nga lu waral lool gis nga boo génnul da ngay foog ni fi mu nekk nii li wër fii yëpp da nga yaakaar ne àddina bi jàkka ji kese la am na ñoo xam ni seen wër àggut fenn jàpp nañu da ngay dégg sax diine ji am Sénégal amut fenn diine ji am Sénégal amut fenn dafa am kenn ci ñi nga xam ni ay ndijaay lañ ci man lañ nekkoon ca lañ nekk ba yàlla war sëgal lañ ñu aji ma dégg mu génn ci kàddoom moo ko wax may dégg su doon dañ ma koo jottali du ma gëm ni moo ko wax xam nga lan la wax nee na bi mu ñëwee ba ci kaaba gi mu gis façon nit yu bari yi ni ñu ndax première ajam la gis nit ñi ni ñu wuutee kii nga laxasu ci kaaba gi di jooy kee nga sujjóot kee yëre yi mu sol sum waay mi ngi ko jooy ba mu ba nga yaakaar ne aw ñàkk la kii mi ngi taxaw ki ku sujjóot da nga yaakaar ne téema ko bu ma ndax déewul mu ne affaire bi daf ko jaaxal bi mu ñibbisee ci la doog a xam ni ku naan li ñuy jaamu Sénégal bu ko yàlla xeebee ku nangam la mu ne la ku ñàkk yar mooy wax loolu wallahi lii la wax gis nga kàddu googu mu wax fa mu pare moo tax suñ ma nettali woon ni moo ko wax du ma ko gëm waaye kàddu dëgg su waree génn maanaam yow dootoo ko mën a téyeeti gis nga de lan moo ko may te xool ñaata at fi mu nekk nii ëppal na juróom-ñaar fukki at boobu ba léegi mi ngi doog a xam loolu kon moo lay wan ni gis ni nit ki soo nekkee ruq bi nga nekkee da ngay yaakaar ne fi ne fii la yëf yi yam allahu akbar imam ibn al jawzi mooy nettali ci sifatu safwa nee na dafa am maire boo xam ne du maire sax jigéen la waaye dafa yàgg dégg kaaba gi bëgg ko kontaan ci moom nee na ñuy aj waa ak guñ màkka waa ak guñ màkka nee na biñ ñee ko kaaba gaa ngi nii bi mu ko séenee dafa daw jafandu ci kaaba gi di jooy ba faat nee na jot aj ñii la def ci série bi rek di jooy di jooy ndax sawq bëgg gis nga bëgg ak kontaan ak mer ñoo bokk yam am na fu muy àgg rek mën na la crise loo nit ki nit ki mën naa kontaan crise mën naa mer crise bi mu yegsee ma ne la kaaba gaa ngi ni dafa daw jàppandiku di jooy di jooy ba ni këlëb ci suuf faatu yu mel noonu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu ñu lay nettali ak yi am ba tey wallahi ci ngay xam ne saxaaba yi ku leen di jéem a diir mag jom sax amoo ko da nga xam nga dama day def loo xamante ni ñàkk jom a tax mu di ko def waaye am na yoo xamante ni ku tuuti jom nekk ci yow doo ko def moo tax kon jaadu na mbokk yi ñu xam ne inna axbaara haula dawaun lil qulub toog di waxtaanee wax dundugaa yi day faj ay xol wa jalaaun lil albaab day dimbali saafara borom xel yi min addanas wala uyub tilim tilim yeeg taq taq yëpp ñu sori ko wa qudwatun fi zamanin kaadat al qudwatu fihi an taghib jamono bi nga xam nit ñi dañoo ñàkk ay modèles yu ñu roy jaadu na ñuy waxtaanee nii ndax ñi ay lumière lañ ñu jàngal ko sunu njaboot xamal leen ko di waxtaanee ak ñoom ñii yaakaar ni ay mag lañ yu baax yu nekk fii ña ca baaxoon di góorgóorlu ñii lañ doon jéem a roy loolu na leer ci ñëpp. ak lu ci waay baax baax baax ñii la doon jéem a roy ku yaakaar ni am na jenn jëf jooy def ba tolloog waa badar wallahi nax nga sa bopp waa badar ba yowm alqiyaama amul kon weddi nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi nee na bu kenn ŋàññi sama saxaaba yi laa wax soo jëlul tolloog montagne Uhud ci or nga saraxe ko yàlla nangul la ko benn sahaaba jël ceeb ti bëpp ceeb saraxe ko yàlla nangul ko ko sahaaba moo lay ëppale waa lii kay leer na wala nasifahu même bu fekkee tibb da koo xaaj xoolal tibbub ceeb mu xaajaat ko ci digg bi saraxe ko yow nga jël lu tolloog quatorze tonnes ci misaal quatorze tonnes mbaa quinze tonnes ci or xam nga quinze tonnes or loolu banque mondiale dafa mën a am loolu banque mondiale mënul am lu mel noonu banque yi ne ci àddina bi yëpp laa wax mënuñoo am lu toll ak 15 tonnes ci or yow boo saraxee woon lu toll ak 15 tonnes ci or ah ak koo mën a doon ba pare baax teg ca saxaaba ya ñëpp a baax waaye am na ci sax ñu xaw a yamamaay booy saxaaba yi booy yi ay ay Rafi ibn Xiddi su ma nee booy yi mooy ña féete woon gën a laa ci jublu jublu ba ci tuutal ah Rafi ibn Xiddi Abu Saïd al-Khudri Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Abbas ah ñooñu ñooñu ah dama ni ñooñu ku ci sarxe genn wàllu tibbab ceeb sax moo lay ëppale fa kanam suñu borom boo gëmut lii rek weddi nga waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi lii mooy waral ñuy delluwaat gannaaw ngir ñu xam ñan ñooy saxaaba yi gën leen a bëgg gën leen a fonk wàcce leen seen wàccuwaay ah jox leen gëdd bi nga xamante ni am nañ ko noo ngi ñaan suñu borom ci mbaaxam gi ak yërmandeem gi nga xam ne moo mën a mokkal ab xol ba mokk rumbux ci def la mu gërëm yàlla na yàlla subhanahu wa ta'ala mokkal sunuy xol ci gërëm li mu dogal ci ni ñii ñooy saxaaba yi te mu gërëm loo ñu ko suñuy xol ba ñun ñu kontaan ci ñoom yàlla na yàlla boole ñu ci mbooloo mooma nga xam ne dañuy tabbi àjjana ànd ak saxaaba yi ma an nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin nu ngi ñaan suñu borom lépp loo xamante ni moo ñuy jengloo ci yoonu njub wa saxaaba ya jaaroon yal na suñu borom musal nu ca loola bépp fitna boo xam ni bu yegsee dañ caa ñàkk dara ñàkkee suñu diine fitna boobu yàlla bu ñu fekk ci kaw suuf nu ngi ñaan suñu borom bu dajeeg moom am ngërëmam rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain